ñun américains yi xamuñu lu dul bàyyi te lépp lu nga xamante ne moom ñu boole ak bàyyi mu imam Hassan Cissé radiallahu taala anhu Mohamed mi nga xamante ne gis ngeen ko suul nañ ko léegi maanaam moom ñoo bokkoon daara ba muy dal alif ba fi la ma fekk te musuma gis lu bon ci moom musumaa gis jëkko ju ñaaw ci moom musuma gis mu wax lenn loo xamante ne maanaam lu tukkee ci moom loo xamante ne rafetul moom ba muy ñëw Amérique benn jour boobu comme mooy da yàlla dafa def damay ànd ak Cheikh Maay ci tukkeem mu ñëw xëcc ma mu ne da ngaa foog ne yaa gën a bëgg sëriñ bi gën ma leen bëgg de da ma ci gën a am sens rek waaye gën a ma leen waaye nag fekk foo nga ngi leen di ñaanal lii moo nekkoon jikko Mouhamed te maa ngi wax tamit dalal seeni xel ndaxte américains yi lii du tax ñi ñi tere fee ñëw ndaxte ñun ak yën benn lañ bàyyi moo ñu boole. bu may làkk olof nii sa am na ñu bëri ba may wàcc ci aéroport bi am na ñu ma lay ana sa passeport carte d'identité africain ma ne ko lay aw ma man ma yow ko xam nga ne yow sénégalais te yàlla dafa def nag fii laa yaroo ci rong imam Assane Cissé rong. imam euh, Cheikh euh, lii nag mooy lislaam kon ñu ngi gërëm ñu ngi sant ñépp comme lu ma leen ko waxee rek ñun américain yi dinañ fi gën di ñëw di leen wan ne ñun tamit gëm nañ yàlla te lii karaama la ba nga xamante ne ñu bari amuñ ko woon sànq rek bàjjan Mohamed moo xamante ne du jullit ñëw na fii ba mu gisee ne ba ñëw fi nekkul julli bam mu gisee ne gars li ngi teral mohammed li ñu kay naqar lu ñu kay métti mëna ne ma lii la rek moy dégg mu dem ci imam Cheikh mëna ah dama bëgg ñëw dugg ci l'islam kon non la jaaré rek dugg ci l'islam li imam wax comme ni mu ko imam waxee loolu karaama la ci boppam te yàlla na karaama yi gën di yokk alhamdulillah my brothers and sisters in Islam uh, I was just explaining to the brothers and sisters here that we, as Americans, we are not. This is not. We're not shaken by this. This is something that we're going to increase our iman, increase our belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and it's going to increase the population of the American community to come to Senegal and stay with you all and to show you all that we are together and we are one. To show you that we love you all and to show you that we all want to be together and we are all asking for you to pray for us. As Imam Sheikh Muhaydin said, I came all the way from New York and nothing brought me here except to come for this ziyarah, to come for this uh, uh, funeral. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He have mercy on our brother Muhammad's soul and that Allah grants him Jannah and that Sheikh Ibrahim meets him the Prophet Muhammad meets him Sheikh Hassan Ali Sisi meets him Sayyidi Ali Sisi meet him and Sheikh Ahmed Tijani they all welcome him into the gates of Jannah وهذا لك على الله